وراء بالبزارات ستايا
nanoo àndandoo ñaanal Serigne Sidi al Muxtaar Mbakke xalifatu muridina ne ñëpp ne yàlla na fi yàgg lool te wér Serigne Sidi al Muxtaar yàlla na fi yàgg te wér barkeb xasaayid yi yàlla na fi yàgg
وإني عبد قديم يدرك بالعين ما كل هدي أمو فؤادي رايا بالبصرى راك بالعين ثم كل أدام فؤادي ورائب وزراد الذات مساياك لا تلا أنت لا ودير الذي ألسم تغى على فإن يقدي يقينت كأمد أي سيدي سيدي كفالي بالبخير سوي سر والخير بمن نبيا وإديا يمينا yàlla sunu borom jërëjëf هليا tabaraka wa taala jërëjëf دين ختم borom waxtu juróomi jërëjëf
بخدمة قليس المدينة سالي
sunu borom jërëjëf borom waxtu juróomi jërëjëf بخدمة قليس المدينة سالي وقت bàyyi Fatou Mame Seynabou jërëjëf عارضا بخدمة قليس المدينة سعادة يصلي borom lambar nag ma yombee jërëjëf بتسليم borom kutum yeeg daw mi jërëjëf عليك الذي نفق xalifa Seex al Xadim Mbàkke jërëjëf بتسليم bàyyi Seex Moodu Musaa Mbàkke jërëjëf عليك الذي نفق
jërëjëf بتسليم bàyyi Sëriñ Fallu Mbàkke burum dindi jërëjëf عليك الذي نفق
jërëjëf بتسليم
man di jërëjëf عليك الذي نفق
jërëjëf بتسليم bàyyi Seex Abdu Xaadir Mbàkke jërëjëf عليك الذي نفق xalifa Seex al Xadim Mbàkke jërëjëf بتسليم bàyyi Seex Murtala Mbàkke jërëjëf عليك الذي نفق jërëjëf
خدت منك العادية بالرياح يصلي ma Serigne Fallou Mbacke borom ndindi ak sa mbay yàlla ji baara Mbacke Baye Sine Takku Mbacke Baye Cheikh Oumy Mbacke sëñ Fallou Mbacke Baye Cheikh Abdou Karim Mbacke Baye Cheikh Mourtala Juma Mbacke sëñ Tahir Mbacke moom sëñ Fallou Mbacke sëñ Xabbanum sëñ Fallou Mbacke sëñ Mamor Mbacke moom sëñ Fallou Mbacke sëñ Fallou Mbacke Baye yàlla ji baara Mbacke Baye Cheikh Mourtala Juma Mbacke sëñ Fallou Mbacke borom ndindi ak sa mbay yàlla ji baara ak Cheikh Modou borom Khayra sëñ Fallou Mbacke borom ndindi ak saamak xayrak aliya ku bëgg sëñ fallu yëkkatil sa ñaari loxo ca kaw ñu màggal sëñ fallu borom dindi borom dindi ak saan jërëjëf
عليك اللسان نفق xalifa sëriñ Saliou Mbacke borom jàmm ak yërmande bàyyi sëñ Cheikh Saliou Mbacke Cheikh Bisrum sëñ Saliou Mbacke Cheikh Moustapha Mbacke moom sëñ Saliou Mbacke sëñ Saliou Mbacke borom xabaan lagan njurul ngeejaan janatul mawa sëriñ Saliou Mbacke yàlla na yàlla dolli leeram jërëjëf
عليك اللسان نفق xalifa sëriñ Saliou Mbacke yal na yàlla dolli leeram borom janatul mawa Baye Cheikh Moustapha Saliou sëriñ Saliou Mbacke borom janatul mawa Cheikh Bédrou moom sëñ Saliou Mbacke sëñ Saliou Mbacke jàmbari Cheikh Béthio Thioune borom janatul mawa sëriñ Saliou Mbacke borom xabbaan ak lagan sëriñ Cheikh Béthio Thioune borom jàmm ak yërmande borom saxandatu daaray ni sëriñ Saliou Mbacke yal na yàlla dolli leeram jërëjëf
عليك اللسان نفق magi maam Cheikh Anta Mbacke magi sëñ Mandumbe Mbacke sëriñu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp gunda maam Sey Ndiaye Lamp taala Moodu Mbenda Fall Lamp Baye Usri Fasan Fall Lamp maami Cheikh Ndigal Fall Lamp maami Cheikh Jëmb Fall Lamp Cheikh Moussa Fati Kala Fall Lamp maam Cheikh Ibrahima Fall borom ndam ndam njëri wa xijra jëf
عليك اللسان نفق magi sëñ Mandumbe Mbacke borom xabban ak denday Cheikh Modou xabban Mbacke sëñ Mamor Mbacke borom denday ak sam Cheikh Ibra ku jam Mbacke Cheikh Habibou Mbacke Cheikh Mandumbe Mbacke Cheikh Mandumbe Mbacke borom xabban denday Cheikh Mandumbe Mbacke borom jàmm ak yërmande sëñ Mamorum Cheikh Mandumbe Mbacke jërëjëf
عليك عليك عليك الذي نفر bala ma ca ngay sigi maam jaar bu sama ca Porokhane ay waay mboolu mi ku may dimbali jóg taxaw ca kaw màggal sëriñ Saliou Mbacke borom jàmm ak yërmande borom pàkk bu ñu barkeel ba jërë jëf
عليك الذي نفر xalifa Seexal Xadim Mbacke borom lambar naag ma yombe magi maam Seex Anta Mbacke Seex Moodu Mamun Mbacke Seex Musaa Seydu Mbacke jërë jëf
عليك الذي نفر xalifa Seexal Xadim Mbacke sëriñub Seex Ndigal Seen borom jàmm ak yërmande borom pàkk bu ñu barkeel bi sëriñub Seex Ismaïla Diouf borom jàmm ak yërmande jërë jëf عليك الذي نفر xalifa seexal xadim mbàkke seex basiru mbàkke seex musa moom seex basiru mbàkke seex muntaxam seex basiru mbàkke borom tiib ak nasru jërëjëf بخبلة منك العادية بالرواية
arñu maam seex mbay borom saadatu daare ni borom luga borom pàkk bu ñu barkel ba maami sëñ fallu mbay jërëjëf مني xalifa seexal xadim mbàkke borom lambar naag mayombe jërëjëf كل وقت وساعة
xalifa seex abdulaat mbàkke borom beneel bàyyi sëñ si dég sëñ seexu naam mbàkke seex abdulaat mbàkke bàyyi sama la karam mbàkke borom kabbu gay sëñ seexu naam seex abdulaat mbàkke sëñ si dim seex abdulaat mbàkke seex musa mbàkke moom seex abdulaat mbàkke seex abdulaat mbàkke borom daaray kaamil jërëjëf
كل وقت وساعة xalifa seex murtalaam sëñ bamba sëñ fallum seex murtalaam mbàkke sëñ xalil murtalaam mbàkke sëñ isaaxa moom sëñ murtalaam mbàkke seex murtalaam mbàkke borom las palmas borom saxa de tu daare ni jërëjëf رداء وسكر رافع الحب في الحياة يسرس xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall maami Cheikh Amdi Khadi Fall jërëjëf بتسليم xalifa sëñ Bara Mbacke borom gi mi nag Mbacke Kajoor sëñ Moussaïn Bara Mbacke Cheikh Mouday sa Bara Mbacke Cheikh Sidil Mukhtar Mbacke moom sëñ Bara Mbacke borom gi mi nag ak kaddu gi ak kaddu gi ak Mbacke Kajoor Cheikh Sidil Mukhtar Mbacke borom yoon yi borom jàmm ak yërmande ku bëgg Cheikh Sidil Mukhtar Mbacke jugal taxaw ca kam màggal sunu xalifa ba Cheikh Sidil Mukhtar borom tawfeex jërëjëf
عليكم بأهلكم Seex Sidil Muxtar Mbàkke borom kër ngan nag tawfeex borom jàmm ak yërmande borom pàkk bu ñu barkeel bi borom sax de tu daara ni yàlla na fi yàgg te wér jërëjëf عليكم بأهلكم xalifa Seexal Xadim Mbàkke borom sax de tu daara ni borom jàmm ak yërmande borom pàkk bu ñu barkeel bi borom sax de tu daara ni jërëjëf عليكم عليكم بأهلكم
xalifa sëñ Mbàkke soxna loo borom tiif ak bay laa yàlla na yàlla dolli leeram bàyyi Seex Musaa Njeeñ Mbàkke sëñ Mbàkke soxna loo borom jàmm ak yërmande jërëjëf أصابكم باخ أباني بالوايا
xalifa sëriñ Saliou Mbacke yal na yàlla dolli yaram bàyyi Cheikh Moussa Saliou Cheikh Bedroum sëñ Saliou Mbacke sëñ Cheikh Mbacke moom sëñ Saliou Mbacke sëñ Saliou Mbacke borom xabban lagan njurul ngeejaan jënatul mawa sëriñ Saliou Mbacke yal na yàlla dolli leeram jàmbari Cheikh Béthio Thioune jërëjëf loxo ca ko màgg Serigne Saliou jar na ko loxo ca ko ñu màgg Serigne Saliou باخي sëriñ Saliou Mbacke borom jàmm ak yërmande sëñ Saliou Mbacke yal na yàlla dolli leeram borom xel kom borom jàmm ak yërmande sëriñ Saliou Mbacke borom nay lul maram borom saadatu daara ni sëñ Saliou Mbacke borom lépp ak fépp ak ñëpp sëriñ
biqati karamatan maam Cheikh Mbaye borom jàmm ak yërmande borom bakk bu ñu barkeel borom saadatu daare ni xalifa sëñ Mor Mbaye Cheikh Abdou Salam Mbaye xalifa sëñ Fallou Mbaye borom jàmm ak yërmande jërë jëf baaxe xalifa Cheikh Modou Moustapha Mbacké jërë jëf Baaxe.
sëñ Axma borom ci doon yeeg nay de jërë jëf baaxe sëriñ Sabiou Mbacké jërë jëf biqati karamatan sëñ Jilim sëñ Saliou Mbacké jërë jëf وإن كنت على بالمدينة سنايا يوجو ربي كل ما لا xalifa Cheikh Modou Moustapha Mbacké Baye sëñ Axma Mbacké Cheikh Aliou Mbacké sëñ Cheikh Aliou Mbacké moom sëñ Cheikh Abdou borom jàmm ak yërmande jërë jëf xalifa sëñ Cheikh Aliou Mbacké jërë jëf يوجو ربي كل ما لا borom ci ndooteen may de borom saadatu daara ni sëñ Cheikh Aliou Mbacké jërë jëf يوجو ربي كل ما لا
may de borom bakk bu ñu barkeel bi borom saadatu daara ni jërë jëf يوجو ربي كل ما لا
Mbacké borom jàmm ak yërmande Baye Cheikh Modou Moustapha Mbacké sëñ Axma Mbacké borom ci ndooteen may de Cheikh Aliou Mbacké borom jàmm ak yërmande jërë jëf ويبا xalifa Cheikh Al Khadim Mbacké jërë jëf بغريبك الدارين يا جالب الوخيا يوصل للباقي يوصل للباقي باقي بسارتنا في xalifa maam Thierno Ibra Fati borom bayteeg maqama Cheikh Balla Mbacké Cheikh Moudou Balla Mbacké Ousmane ak Aydara maam Thierno Ibra Fati Mbacké Cheikh Moudou Kara Nooré ni borom si koori dra jam بقدر يا سسق والفن والوليا باقي لا أبي رسول
xasaayit gi day far bàkkaar ku jóg taxaw ci kaw yëlbu yàlla na nga set wecc wecc wecc ci bàkkaar dégg leen xasaayit gi day far bàkkaar وإني بعبد أيوا أكيد كل لا أمبه وخدمتي وخدمتي بمن قال لي خيرا مخاماتي مخاماتي بي بمن أبقى وإني بعبد قال لسان لكم خديم من خديم من هماك عن الأقدار لا ينسى بديكم معك wax leen yaqul wa lisaanu lii ko wan xadiima man xadiima man xamaaka amin ak daari ilaawe saaraawe maaka anin ak daari ilaawe wax leen yaqool waa lisaan léeg-léeg ko woon xadiima man xadiima man xamaaka anil ak daare ilaaye saraaya lidi ko xadiima man amaaka anil loxo ca kaw ya xoola lisaan dele ko xadiima man xadiima man amaaka anil akdaar ilaa ya saraaya
ay waay mbooloo mi nañu maase jug taxaw ci kaw sargal sëñ Touba ku jug taxaw ci kaw yëlbu yàlla na nga set wecc ak bàkkaar la jug leen taxaw ci kaw ñu màggal Seexul Xadiim
anil akdaar wa kun amaami wa kun xalfi wa kun wasatiya wa fi yamini simali يا رجاء كني وكن أمامي وكن خلفي وكن وسطي وفي يميني شمالي يا رجاء كني يا سيدي يا رسول الله رسول الله رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله رسول الله يا رسول الله مريدي أنا كسب سيدنا محمد يا رسول الله يا سندي إني إلى الله تبت اليوم من ددني بسم الله الرحمن الرحيم بركة الذي وجود والخدم قد وجبا له لنا تنمي الخدم بركة الأسرة وجود والخدمة خد وجبا خد وجبا له لنا تنمي الخدم سبحان البقاء والمخالفة من خاد لي أمنا بلا مخالفة ملك الذي الخيام بنفس وجب له إلى كل يد غاد الحجب الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله تعالى كما لو القمس والوعد لمن له الخطة والإرادة وللمما آياتي الحبادة لمن لا سمو كمال البصر مع الكلام كل شيء والنصر هو تعالى قادر مريد قادر مريد قادر مريد قادر المريد قادر المريد قادر المريد قادر المريد كي مريد فنين مقال الخزائن هو تعالى خادر المرد وعالم أي هو الفريد الله ربنا سميع وبصير ومتكلم وجاد بقصور لم ينقطع دم ولا هدوس ولا فناء للذي من العديس رب الورى رب الورى رب الورى رب الورى رب الورى رب الورى انا كسب سيدنا محمد ليس له تماثل ولا افتقار بل له من ماثل حمدي لباخ جل عن تحددي وعن توالد واصل وددي ملكنا لم ينعس له كرا يدلو وليس ينو كرا أحمد من جهل أحمد من جهل أحمد من جهل أحمد وسام لم تنعو وقد كفاني الخمم نفعني لسياما وبكم لم ينيال ونيم الحكم إيجاد كل ممكن وترك أجل من كفاك فضلا تركا لا رب لا رب لا رب لا رب لا رب خيرا وأن سوى قني لو تقرأ من أداو رسولنا نبينا محمد عبد الرسول اغتمى والسمد أما أسدخل بأمانة جسد لو بتبليغ إلينا هنكسب يقود من خيانة وقد ما أرغم خدمتي لآوي قد ما محمد بصر من لو الخدم كرسني مقدما كن ساخدم ليلة مولد النبي محمد ليلة مولد النبي محمد ليلة مولد النبي محمد ليلة ما ولي ليلة ما وتحبي وتهري ست أسمي يا نجاة والفلاح مع سرور والنجاة يا رب وسلام مع اندفاع نقمي هوت خوارخ بدت حل الروات ثبتت كم مثل نار الفئات مع ماء الدقم وأين ساوة التي قد عصمت وجلت للفرت قبل الملة وصيرت كالعدم يا سيدنا محمد وكان خداد السهد فرد لآل ريبي أنسم أخبار النبي ورجاء بندمي سيدنا محمد تريد فيها بنجاح عن السماوات الرجيم وفر خاسر يلم بيس بيسا وكمي يو سيدنا محمد ستعين ولدا خير نبي قد بدا صلى عليه من هدى فؤاده بالحكم نور نسيب قد يرى بي خسورة خيسرة من كان في أم الخرى مكة مكة مكة مكة مكة مكة مكة مكة أنا قصب برا مكة المكرمة مكة خير الورم إيوا لوكسن سدايل إيوا وقبل رفيع سم كله فارتفع نحو سم المكرم حتى سرير كسر لأجل حول اقترى من نور أفتل الورى ربي عليه سلمي سيدنا محمد سسبب فتبانينا بعد صلاة لا تسول بالآل والصحب الودول وبيجدد السبيل بلا عيدا أو ألم سلم وسلم الحلا مناس مولدا جلا لخير ناس والخلا ولتتقبل قدمي سيدنا محمد